publicité. Serigne Cheikh Serigne Cheikh borom jooni jooni jooni. waaw produit bii ngeen di gis moom la ñuy wax yokk awra. yokku awra nag téeméeri nit yoo wàññi senegal juróom-ñeent fukk yi gëmuñu ko. am na ñoo xam ne sax dañuy woote woo xam-xam ci biir senegal ba pare ne yokk awra amul. mais képp koo xam ne da ngaa taxaw biir senegal ne yokku awra amul man du ma ak yow. ndax lu waay amul sa waay da koo amul. Mhm. te yàlla suñu borom gàncax yi mu wàccee ci kaw suuf. Mhm. lim ci wàcce lépp maanaam yokk awra moo ci gën a ndaw kon xam nga ne yokk awra lu mën a nekk la produit bi nag képp koo xam ne daa am problème mu awra bu gàtt nañ may baal ci kàddu yi bu ko jëfandikoo awraam dana yokk ci lu amul sikki sàkk te ku ma ko jox nga utiliser amoo résultat boo ñëwee ma delloo la sa xaalis billaahi boo ñëwee ma delloo la sa xaalis yàlla rek mooy sama seede nga benn garab boo xam ne yaa ngi koy liggéey nga tuddee ko baatu kër gi. waaw baatu kër gi balay loolu baatu kër gi maanaam li tax ñu tuddee ko baatu kër gi histoire la. Mhm. ndax am na ñoo xam ne dan daan ñàkk kàddu seen kër. Mhm. ndax néew doole ci wàllu lal. waaye bi ñu leen joxee garab gii di baatu kër gi ñu ko utiliser waat di amaat baat seen kër. Mhm. loolu waral ñu tuddee ko baatu kër gi. xam nga lii lu leer nañ la. fii nag ñu fi joxe garab bare na mais bu ma la joxee garab dama lay wax lu leer nañ boo ko utiliser boo amul résultat ñëwal ma delloo la sa xaalis. billaahi wallaahi lu leer nañ la te bii mooy jooni jooni bi parce que dafa am traitement am jooni jooni bii ma yor nii nag mooy jooni jooni bi utiliser léegi gis léegi bii mooy indi jooni jooni bi bii mooy jooni jooni léegi gis léegi am na boo xam ne nag defar nañ ko boo xam ne pour traitement complet la ah. mais bii mooy jooni jooni bi utiliser léegi gis léegi te bu ma la ko joxee boo utiliser boo gisul boo ñëwee ma delloo la sa xaalis billaahi wallaahi te garab gi doo ko utiliser mu lay wàcciloo mhm. wala muy metti sa bopp wala muy yëngal sa estomac mhm. feebar boo am man nga koo naan te la wàññi dara amal diabète mhm. amal lu la neex boo ko utiliser woo du la wàññi dara parce que du garab gu wex parce que nit mënoo koo jox garabu kàttan di ko jox garab boo xam ne da koy naan mu ko indi leneen jafe-jafe affaire bi du foofu fii nag ñi fi joxe garab bari mais bu ma la joxee garab dama lay wax lu leer naañ boo ko utiliser boo amul résultat ñëwal ma delloo la sa xaalis billahi wallahi billahi wallahi lu leer la ci lu leer naññ la ci lu leer naññ la waaw produit bii moom la ñuy wax taaru jigéen taaru jigéen nag bu ñu ko waxee taaral jigéen moo ko tax a jóg hmm. produit bii bépp jigéen boo xam ne maanaam da bëgg am form hmm. li commencé ci kaw ba ci suuf hmm. am na loo xam ne nag du ko tudd parce que dañuy warmal teggin yi mais képp koo xam ne da bëgg forme li commencé ci kaw ba ci suuf ak noo ko bëggee boo ko utilisé da nga am form waaw bii mooy sëqal karaw day sëqal karawu góor di sëqal karawu jigéen di sëqal karawu xale di sëqal karawu mag képp koo xamante ne bii sa karaw day ruus wala muy dagg wala sa bopp di am ay weex-weex ci kaw di karaas boo ko utilisé loolu dana dañ te danga am karaw gu sëq résultat bi 15 jours la boo ko utilisé 15 jours amoo résultat li des ci pot bi may naa la ko ñëwal ma delloo la sa xaalis waaw produit bii ngay gis moom mooy wàññi biir mooy ventre plan mm. képp koo xam ne maanaam biiram dafa rëy mm. muy góor muy jigéen mm. parce que góor bu biiram rëyee mm-hmm. bu bu bu waree sëy raakool yi nga xam ne fi la deret bi war a jaar di war a dem ci awra bi raakool yooyu gerees gi bu yàggee daf koy fàtt moo tax maanaam biir bu rëy bon ci góor moo tax maanaam biir bu rëy bon ci góor moo tax maanaam biir bu rëy bon ci góor आए naye lay naye cumbulay lay naye cumbulay lay naye cumbulay lay naye na yaram naye cumbulay lay naye lay saagaye bu leen ñibbi yaram li daw yaram naye cumbulaay laay naayee. cumbulaay laay. saagaayee bu leen ñibbi toog leen li daw na yaram. naayee cumbulaay laay naayee. cumbulaay laay naayee cumbulaay laay naayee. cumbulaay laay. saagaayee bu leen ñibbi toog leen li daw na yaram. naayee cumbulaay laay naayee. cumbulaay laay. saagaayee bu leen ñibbi toog leen li daw na yaram. naayee cumbulaay laay naayee. cumbulaay laay. naayee cumbulaay laay naayee. cumbulaay laay. saagaayee bu leen ñibbi toog leen lii daw na yaram naaye jimbulaay laay naaye jimbulaay laay saagaaye bu leen ñibbi toog leen lii daw na yaram naaye jimbulaay laay naaye jimbulaay laay naaye jimbulaay laay naaye jimbulaay laay saagaaye bu leen ñibbi toog leen lii daw na yaram naaye jimbulaay laay naaye jimbulaay laay saagaaye bu leen ñibbi toog leen lii daw na yaram naaye jimbulaay laay naaye jimbulaay laay naaye jimbulaay laay naaye jimbulaay laay gaayee bu leen ñibbi toog leen lii daw na yaram. naayee ci mu laay laay naayee ci mu laay laay. saa gaayee bu leen ñibbi toog leen lii daw na yaram. saa gaayee bu leen ñibbi toog leen lii daw na yaram. saa gaayee bu leen ñibbi toog leen lii daw na yaram. saa gaayee bu leen ñibbi toog leen lii daw na yaram. saa gaayee bu leen ñibbi toog leen lii daw na yaram. saa gaayee bu leen ñibbi toog leen lii daw na yaram. saa gaayee bu leen ñibbi toog leen lii daw na yaram. Nafaal sol na mbubum njoobeen. jomm na ko Nafaal. njaay sol na mbubum njóobeen jomm na ko sol na mbubum njóobeen jomb na ko sol sa baatu na mbubum njóobeen ko nafa baatu xaftaan muy ndurak moom jomb na faal sol na mbubum njóobeen yomb na ko dara la sol teg ca baatu xaftaan muy nduroog moom na faal sol na mbubum njóobeen yomb na ko dara la sol teg ca baatu xaftaan muy nduroog moom dara la sol teg ca baatu xaftaan muy nduroog moom dara la sol teg ca baatu xaftaan muy nduroog moom dara la sol teg ca baatu xaftaan muy nduroog moom dara la sol teg ca baatu xaftaan muy nduroog moom dara la sol teg ca baatu xaftaan muy nduroog moom dara la sol teg ca baatu xaftaan muy nduroog moom dara la sol teg ca baatu xaftaan muy nduroog moom sol teg ca baatu xaftaan muy niroog moom. dara la sol teg ca baatu xaftaan muy niroog moom. waaw kay xam ngeen ni ay njulli dafa baaxoo ñu leen di kasagal. tarkal ñu am ay salbe. ñuy foo di kaf di ree. ndax kat suñu téegal yi mën a gaaw wér. ndax xam nga téegal dafa metti lool moo tax gannaaw ñun nag magum dëkk. xeeb nañu benn xeeb gi. ñuy fo di kaf di ree. ndax kat li nekk suñ bopp mën a wàcc moo tax mm-hmm. tey kat mm-hmm. ma bëgg ñu ñëpp ñu dajee kafoore mm-hmm. ah dëgg la jàmm dellu si waat Latif waaw dëgguma la sax ah. waaye ñun ñi dañu ay jàmbaar tigi ah. gis ñu kenn ku ñu fekk ñu fi xiif ah. ñi di dee ñu leen di gis teew ñu ànd ak sunu ngor waaye ay jàmbaar lañu waaye kon ma ne dara la sol teg ci mbootum njóobeen muy niroog moom dara la sol teg ci baatu xaftaan muy niroog moom dara la sol teg ci baatu xaftaan muy niroog moom dara la sol teg ci baatu xaftaan muy niroog moom dara la sol teg ci baatu xaftaan muy niroog moom ndokk yàlla naam tàkko maa ngi lay nuyu di la tatakal bu baax dellu naa la ziar bu baax ah ndokk man da sama xel dafa ne ci Latir ma ñëwoon di laaj ci loo koy dégg dama am yërmande ci moom lool hmm. sama taaw ci lalu magum dëkk bii la faatoo te ndokk yàlla maam ko lël bii hmm. saa yu ko magum dëkk defee day ruur genn gone du dellu mbaa xam nga ci latiir ci lu mu ne ay tàkku li nga wax yépp dëgg la sama xel mi ak sama xol bi daa nekk sama doom jël latir tàkko ma bëggoon dem dëkk ba rekk dem seet sama doom jooju latir ndax ma xam ci lu mu nekk ndax sama xol bi dafa nekk ci moom lool torop torop torop torop wallaahi tàkku ndokk yàlla naan tàkku mbaa xam nga ne magum dëkk nee nag kenn du leen rax tàkku naa xam naa ko waaye tàkku mhm. sama bëtu biig yaa ngi nii nelaw ma benn yoon sama xol bi sama xel mi taq lool lool lool sama doom ja Latir tàkku il faut ma dem seeti sama doom ja ndax ma xam ci li mu nekk ndax muñ naa ko muñ mënatuma muñ ndokk yàlla loolu dina jafe lool ndax lël bee ba ko magum dëkk dalee def ba tey ci ruur la dëkk ma di la fàttali ne sama taaw ba ci loolu la faatoo woon xanaa rekk nga muñ tey julli di ñaan yàlla ndax fi nekkat loxob suñu boroom doo nga fi des nañ ñaan yàlla gone ñibbi rekk ci jàmm ndokk yàlla naamtaa bul fàtte magum dëkk neewoon na lël bii su tàmbalee kenn deetul dugg ci dëkk ba waxumala ak nag di yegg ca lël ba ndokk yàlla bul fàtt ne boo demee sa bakkan mën na faa des bégg naa li nga wax dinaa ci bàyyi xel bu baax ndokk yàlla yal na la yàlla sàmm amiin sàmm la te ba mu des ci jàmm man maay ñëw yegg kër ga ah doo yendoog man dama faa bàyyiwul kenn moo tax ah mën ngaa yem lay bàyyi ma fa kenn moo tax. maa ah, baax na waaw kay jërëjëf yàlla baax na. bàyyi lépp ci loxo yàlla. yàlla baax na jërëjëf waay. Ui saman la yu ya Wai Wai Wai Nur eh Nur eh Nur eh Nur Eh Nur Nur Nur lan la Latir Eh Nur la xew Latir waaw man Latir maa ngi ni eh Nur lan la la ilaha illallah ki gént day gént rek day gént tiit naa de wallaahi tiit naa Nur day gént rek allahu akbar mat la gaañ ci bopp. lan la. baax leen dal leen day gént rek ah yée nga ñëpp birima nooru dalal birima waaw ku ci mën ayatu tukkur siiw nako tari ndax karange gu bax la de ngol nañu ko nañu ko jangal nooru ku ci mënu nga wax am you. ndey naam man kat dama am ak jaaxle si sa bay ndax dama dem ca ndaala mhm. tank ndox ngir may saa baay mhm. waye kat numu duggu negu sa bay ni sa bay mhm. baay saa baay saa baay ba mu yoon waye kat saa baay yënguwut hmm? ma dem ba jege ko dal di koy laal rek sa bay tepp tit xippi ay bëtam rek xool ma jàkkaarloog man daal di jël ndox bi nan lépp delloo ma pot bi daal di sëngeem lu waat jërëjëf sax saa bàyyi waxuma te saa mhm. musul am sama digganteeg saa baay mu nekkoon lu ma jaaxal may laaj ndax xam da ngeen am benn jafe-jafe boo xamante ne man yëguma ko Yacine bul fàtte ne sa baay mooy magum dëkk bi te umpale woo ne léppam da koo jël def ko ci dëkk bi taxit nga xam ne dafay gént gént gu ko jaaxal lool ba waxtaan ceeg man kilaa dem ci yaakaar bam jox ma ay tegtal te dinaa ko def incha allahu kon na sa xel dal. ah kon de sanday xel dal na ndax ginnaaw dem nga si yaakaaru dëkk bi koo xamante ne lépp luy jafe-jafe dëkk borom dëkk bi moom mu ngi ci taxaw na kon incha allahu rabi lépp dina saafaraw. sa xel na dal ndaxte yaakaar moom moo lay aar aar ma aar sa baay. alhamdulilah aar ñu ci lépp nag. kon lépp lu ma masa wax gis naa ko moo tax ma jublu ba dara xew rek ma jublu fa balaa dara xew. incha allah incha allah mm-hmm. rabbi lépp dina saafara dalalal sa xel doom mm-hmm. dalalal sa yaay. Yacine bàyyi nga ni kontaan naa ci yow ndax doom ju baax bu ay waajuram nekkee ci ay jafe-jafe nii rek la war a taxawee. Sanday kéwél du tëb doom jéem. jërëjëf jërëjëf sax noru naka bi Latir ma ngi sant bu baax ba ya nga si jamu, waa ñi ngi sant alhamdulilah noru naam Latir dama am luma jaaxal lolu ndax biig bi ñu tëddee sa yuxu yi dafa for lolu yuxu yi titangi deug nga tit ma bëggoon xam nak lan moo waral sa yuuxu démb yi ci guddi jaaxal na ma loolu nooru Latir bi bi ñu tëddee ba guddi gi xaaj dama gént gént gu doy waar dama jóg jëm si lalu jigéen ñi bi ma demee bay bëgg a yegg ab xaj dogale ma di ma dàq si biir gënt gi maa ngi daw wuti wat lalu góoriñ waaye lu ma gën di daw lël bi di ma gën di sori gënt gi jaaxal ma lool lool lool lool lool nooru bàyyil xel ni gént bu doon dëgg du bàyyi ba ngay nelaw muy ñëw te kat ak jaaxle rek lañuy andil waye man lima ci gëna yëm te gën ci doy war moy dama dégg ngay tudd sama tour bi nga yuuxoo ci biir tiitaange gogu ak gogu la latiir gi fo tollu di dégg lolu ana lan moko waralon wax nga dëgg bi may daw ci biir all bi la daw ba ci yagg ma daje ak yow si laa gaaw tatafula la làqu si sa ginnaaw bi ma gestoo nag gis naa xaj bi dëpp mu doon lu ma jaaxal xaj bi dàq la nga laxaw sama ginnaaw xaj bi dëpp gént googu de gént gu ma jaaxal la waaye nag nooru àll bi amuñu fi kenn ku ñu mën a tekkil gént gi amuñu fi tamit benn sarax bu ñu fi mën a génne xanaa kay ñu wàkkiirlu ci yàlla rek dolli ci li ñu ci wàkkiirlu woon daal la taxal bu baax a baax yàlla moo ngi ànd ak ñun. na la. baax Joor man de damaa bëggoon a daw ndax fan yii sama xel dafa nekk ci sama yaaja rekk te man rekk la am su ma fi dee fan la jëm Codou lu xalaata daw mukk ñun ñëpp la suñu xel nekk suñu yaay te umpale woon na lël bii ba nga fi nekkee ba léegi yàgg na kon li la fi dese bareetul tee ngaa muñ bañ a daw ndax yow leer na ni soo dawee su la magum dëkk jàppe mën naa tàqale sa bopp sa baat tey ngaa toog joor damay ragal li fi jële woon ñi fi nekkoon duñu fi bàyyi ñun ñii bul fàtte ne motoon nañ fukki nit ak juróom-ñaar te ñépp faatu nañ ba mu des ñu ñett kodd jàmbaar ca waar wa te jaloore borom mo koy netalil bopam gor nak ca wax ja li tax sa wajur indi la fi dafa bëgg nga xaré ba xey dé dama bëgg nga muñ nga def né comme ñun day metti rek way dina jeex muñal bul joy nopil kodd bul joy bo joy lan lay def bul joy kodd nopil kodd sama xel sama yaaji rek moo ma bëgg daw deug la waye muñal lepp dina jeex dootoo fi am ling fi amone kon muñal muñal Assalamualaikum.